tey jii dama am gàcce tey jii dama am kersa ci suñum réew ndax suñum réew mérité wul ay doomam di attaqué ñi gën a néew doole si ñoom suñu doom mérité wul ay élection nga war a xam ne dafa nekk ay moment de respiration démocratique ay moment yu war a wane ni suñu dëkk yegg na ci dëkk yi mag yi yegg ci maturité ci démocratie élection yooyu di jur ay scène de violence mais jëmee ko ci ay xale sans défense ñi ko def nag identifier nañ leen c'est le maire Cheikh Dieng kii lâchement comme toujours n'était même pas dans le cortège ay wëyu la yónni ay bandi salté la yónni ñoo xam ne xam nañu leen ñeneen ñi sax xamuñu leen dëkkuñu fi mu dem jëli leen jox leen ay jaasi jox leen ay xeer ñu song ay nit sans défense gaañ ci ay xale ak ay jigéen gaañuñ ci benn góor lañ ci gaañ kooku moo taxaw doon jéem a xale yi ak jigéen ñi. dinañ ko yóbbu si yoon parce que alerté woon nañu. woote woon nañ bañ tàmbalee di perpétrer acte de violence ci commune bi ci la Malal Diallo mii jël téléphone woo ko man na wax ko ni ko ñii kat ñi ngi bëgg a yàq campagne bi parce que fi mu toll nii ci ay xalaat lañu war a xeex waaye waruñu xeex ci exposé suñu mun ñu song loo xam ne suñu moomeel la déjà ñu xam ci violence kenn gis suñu ñu yor ay armes li tax tey ji gaañu yu mel nii moo di ñun duñ doxantoo ay bu buñ doon doxantoo ay armes am na ay xale ñoo leen ëpp ci doole ñoo ëpp ci nombre waaye ñun dañu jàpp ne élection weccee xalaat la élection programme la ñuy xeexee